ñun tamit dañ ci jouer rôle moom mooy suñu représentant yi sur le terrain suñu équipe technique yi may profito di di leen remercier mhm. euh, ci mobilisation bi parce que tey jii lu ëpp téeméer ak juróom fukki nit ñu ngi liggéey ngir suñu téléspectateurs yi suñu lecteurs yi suñu internautes yi suñu auditeurs yi am information bu mucc ayib te ni mu tàmbalee nii neex naa gis ndaxte kat matériel mu ngi fi déploiement bi mu ngi fi surtout nag collaboration yi mutualisation yi ñu ngi fi mmh. ñëpp ngi liggéey pour entité yëpp Euh, tey jii boo duggee ci bi da kontaan boo demee RFM da ngay kontaan boo demee IGFM boo demee l'Observateur ci terrain bi ci bureau yi ci technique bi ñëpp daal ñu ngi jàpp ci liggéey bi pour ñu joxe information bu gën te loolu vraiment war dañ ko rafetlu te ñu ngi fii ñu ngi feneen ñu ngi ci terrain bi ñu ngi cosaan ñu ngi euh, Médina mm-hmm. ñu ngi fii euh, ci IGFM mm-hmm. ñu ngi fépp daal te euh, vraiment. Sénégal aussi. solos bés bi am na loo wax sànq c'est très important mu tënk ko benn bi premier cercle bi moom mooy cercle GFM. Mhm. Euh, équipe yi ñu déployé sur le terrain deuxième cercle bi moom mooy situation room fi nga xam ne observateurs yi fa la ñuy yónnee seen i ay information lu toll si juróomi junni observateurs yoo xam ne ñu ngi ci Sénégal troisième cercle bi moom mooy li Cheikh Tidiane wone sànq te moom ak mag yi ñu si liggéey bu baax a baax moom mooy suñu téléspectateurs yi suñu auditeurs yi suñu lecteurs yi fépp fu ñu nekk ci biir Sénégal yore seen téléphone portable bu nekkee ni gis nañ loo xam ne eh, ñun teewuñu fa te yaakaar nañ ni adduna bi yëpp war nañ cee jot ñu foto ko wala ñu filmer ko envoyé ñu ko ci numéro bi nga xam ne joxe nañ ko sànq moom mooy 77 738 68 69 ci whatsapp bi bu boobaa ñun liggéey bi nga xam ne journalistes yi mooy seen liggéey recouper vérifier. ak yi ni mel dinañ ko def bu ñu demee ba mu wóor nañu lii euh, xibaar bu wër la bu boobaa tamit ñu boole ko ci liggéey bi ñuy def bi bu boobaa xibaar bi gën a yaatu gën a set gën a complète te loolu yëpp daal journée bi yëpp noonu lañ nar fas yéene liggéey